jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu amaan mbégte tey ñu teew fii kër Prési Jax Wrestling production yaakaar naa ne mu décroché combat espoir combat bu neex diggante parcelle ak jàmm gën yaakaar naa ne xeex bi ba tey jeexagul. gars ba tey Papa ak Siteu daal yaakaar naa ne ba tey dañ koy def ci espoir yi ki ngeen jàkkaarloon nag xam ngeen ko ci biir làmb muy liis Ndiago mujje bëre ak Tapha di ndaanaan am lu mu def ci biir làmb yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku tàkku saanam nga ak Sangomar ak Boy Paul Rendi Sega caatu rëbës mu daan ay ndaanaan yu bëree bëri ci biir da làmb daan leen avec la manière tey nag mu ñëw fës yéene signé kombaam ak Ardo bu Golf Gaynde Ardo bi nga xam ne moo mujjee daan xale ba Saba am ay tàkkusaan daan bu site daan daanaan yu bëree bëri si biir làmb bëreeg ñoom mu fas yéene jàkkaarloog moom loolu Jax Wrestling production moo ko taxawal damay nuyu liis bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet ñu dugg ci waxtaan wi maa ngi lay siyaar baax Baye Fall di la waa ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu kooku bi di nuyu ménagère arbay ñoom as liis nga mujj a bëri ak Tapha Mbeur nga amaat komba combat jànq combat xale lan moo tax chaque jour ngay bëgg di bëri ak say morom. waaw yow wax nga wax ci quoi day nga ak say morom. waaw boo bëri ak say morom waaw damay bëgg di bëri ak boo dañ naan mm-hmm. waaw làmb la quoi. ko gën a pànk. waaw ah, man loolu laay wër waaw. bu wax Ardo kan nga may wax si biir làmb. Ardo. maanaam ci ay qualité am ak ay feem ndax daanam. champion la bu ma bokk ngeen benn adversaire muy caatu rëbës kenn ku nekk daan caatu rëbës mais si biir làmb mbër la boo xamante bi nii bëtam yaakaar naa ne am na feneen fu mu ko teg comme ni nga tegee sa bët feneen mais combat bi aussi tamit xam nga li muy représenté sa carrière. waaw combat lu muy représenté bëri na ko waaw. parce que ñun dugg ñu si làmb pour par cent nii waaw naam lu ñu dugal si làmb muy teral suñu waa. démarrer bu baaxee sama ménageur na jàmm gën am lu fa def nga gis bëre bu rëy ba mu bëree caatu fora am ndam ci kawam mel na ni biir jàmm gën tamit xam ngeen ardo. non ardo booy ndeyu ko si laaj xam ngeen ardo mooy loolu mais làmb la làmb la quoi yaa ngi dégg làmb la dugg na jàmm gën dugg duggaan na fa man dugg naa parcelle duggaan naa fa yaa ngi dégg waaw ñun ay champion la ñu ndam quoi waaw. day tey ñu ne parcelle ak Pikine derby des fois ñu ne jàmm gën ak parcelle mais nag jàmm gën ak parcelle da nekk combat bu neex Siteu Papa Sow ñépp xam nañ ko combat bi ni mu demee aussi tamit nga duggan fa bëre fa ak Tapha Mbeur nga duggaat fa combat bi lan nga si teg bu njëkk am na benn slogan ban slogan ngay génneel waaw loolu yëpp ngi suñ kanam ko waaw. waaw mooy man dama koy tàngal ba mu tàng. jër. mën a xaar ci liis ci côté innovation ci côté mobilisation parce que làmb ji moom yaakaar naa ne ñeen ñi ciy bëre ñëpp ay morom ngeen di doon journée d'espoir lañ ko tuddee ban xaar kanam nga war a xaar kanam bu ñu indi mooy man sama combat ñëpp ko soxla ko jëm ko na moom. toujours boobu combat waaw te combat bi tam dañ si gis mobilisation bu garaaw. Mm-hmm. waaw parce samay mm-hmm. nam nañ ma trop. Mm-hmm. ba tey bëre nga amaat combat fii ngay waaje wala combat bëgg ngaa génn. ça dépend rek samay staff sama ménagère. waaw ñoom luñ luñ luñ. ba tey bëre woo ngay wax promoteur bi taxawal sa. waaw bu baax di ko gërëm. waa jaamu gën dañ leen mobiliser bu baax a baax. Mm-hmm. képp kuy bëgg Liss Ndiago foo mën a nekk. Mm-hmm. di nga mobiliser bu baax a baax. Mm-hmm. waaw combat bi nii. bàyyi la nga woo say supporter bu ko defee ma ñëw ci ñaari ménager yi promoteur bi doog a tëj ñoom ñaar xaw ma ndax mas na daje am na benn ménager ma xool nee na ma fan yi li muy woon aas xaw ma Père Sowru Fall loolu ci kanam la lan ngay wootee. waaw di woo ñëpp di woo jàmm gën di woo képp kuy bëgg Liss Ndiago ak foo mënta nekk man ak Ardo la waaw nañ waajal kon ñu daan waajalee te bii naan bëgg naa mu raw si trop di woo autorité yi ñëpp di pour cent jàmm wax ne Liss Ndiago na combat waaw ndox na xam lox nañ jaar fu ñu daan jaar quoi waaw tribul luñ doon def waaw di professeur di sant suñu yaay mère Awa Balla di sant suñu yaay Farsow di sant suñu yaay Afia di sant xam lox awu grand frère la sant mafia bi yëpp di sant Moussa Moussa Gueye di sant Aba bu baax di sant képp kuy jàppale lis Ndiago di sant ñoom Cobb waaw ñoom Ngulle ñoom Laurent ay Uba Youssou Dam instant boo yëpp bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp di woo ñëpp si combat bi waaw di sant suñu ménager bu baax Aliou Ngaye waaw suñ papa la waaw di bëgg ñëpp di nuyu ñëpp di sant diaspora yëpp. jërëjëf Liss Guèye